la mais Wilane est coutumier des faits il est coutumier ak jàmm ak ku yow arrangé wu la. dama la jël yàkkam ci Wilane dina wax. ah Wilane n'est pas vrai ah. Wilane lu mu wax du dëgg. yow réglé leen seen problème Pastef te bàyyi. justement problème seen problème yéen waa yéen yéen waa Pastef. ñu jeex rapidement parce que euh, Codé mi ngi koy wax sànq ah nee na le problème n'est pas de savoir euh, kan mooy nekk candidat ou pas mais c'est de régler la question de la troisième candidature parce que dégg naa am na ku ko wax euh, je crois c'est Abdourahmane Diouf qui l'a dit tey seer naa ko ci xaw ma ban télé. mu ne en fait toute cette tension là il suffisait juste que Macky Sall respecte kàddoom Sénégal du am benn tension. Ah est-ce que ci même positionnement bi ngeen nekk. man j'attendais à ce que Assisaar yi règle problème bi. les Assisaar. ñoo ne ñoo fekkee Assises nationales. exactement am luñ ci waxoon am luñ ci bindoon. oui jaay ko Sénégalais. déedéet damaa ma yegale rek bi ngeen bëgg yéen référé ci defal ndànk mais affaire hmm. affaire mandat xam nga. affaire mandat Assises yi waxoon na ci. non moom laa wax léegi man ñoom comme nee anti système lañ. buñ dugg dara laale dara système bi. rek la leen seen problème léegi léegi léegi bàyyi man je suis du man je suis du système question bu développé Moustapha xam nga question Kirchall bi sax ci boppam ñoom dañ ko daw waxuñ ci mais c'est la troisième candidature man moo tax mandat mhm. parce que troisième mandat may ko mu bokk la troisième mandat di ko tudd mooy may ko mu bokk te président makki sàll warul bokk warul bokk warul bokk ne veut pas dire du bokk juridiquement warul bokk juridiquement mhm. warul bokk moralement warul bokk politiquement loolu moom moom mooy am te wax dëgg yàlla sénégalais yi ci loolu la ñuy taxaw. loolu rek parce que politiquement. Mm-hmm. Mm-hmm. politiquement bu yaakaar ne limitation de mandat ci moom mi la jógee jógewut ci moom. depuis 92 93 ba ñu toogee commencé waxtaan. Mm-hmm. ci lañ commencé woon travailler sur la limitation. Ouais. de mandat depuis le code consensuel moom da koo ñëw consolider ko. consolider ko mooy loolu mooy politiquement moralement nag wax dëgg yàlla. moom moo fi yëkkati kàddu bind ko. yónni ay nitam ñoom tamit ñu wax Ismaïla Madior Fall tey jii ñu bëgg a wàccloo moo tax à l'Assemblée nationale dama ko tiim rappelé ko li nga xam ne moom la doon jàngal étudiants yi en 2011. Hmm. ne président Macky Sall warul nekk. candidat université moom su ma fa amoon dogal du fa président Abdoulaye Wade mu nekk candidat ba pare mu dool si mu ne la parole du président. non euh, la parole du président a une valeur juridique. moom moo ko wax. la parole du président a une valeur juridique comme que ne ngeen il incarne les institutions kon nañu tënk ci loolu. concernant maintenant suñu leader ñun ñun dañuy bokk. ñun dañuy bokk. Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom dafay bokk koo kenn mënu ci dara. léegi bu leen parce que amul lenn loo xam ne. waree bokk rek bokk waaye bu warul bokk ma déglu ma rek. amul lenn lu gaalu waaw dafa ba mu bokk bu warul bokk du bokk. léegi Macky Sall warul bokk lox lox doo du bokk. parce que Macky Sall bokk Macky Sall warul bokk du mais ñii liñ bëgg liñ yaakaar naan ñun dañuy bokk leen a bokk. non c'est a bokk. su ngeen di bokk da ah, ngeen hmm. parce que keroog ba ñuy installer les bëgg bëri na bu naaw yow bu Sénégal ñoom. s'il vous plaît s'il vous plaît keroog keroog vous le partagez may ko waagale sa pensée. yéen yéen a refusé que ñu partagé ko parce que yéen a bañ ñu opposé wu. ñun on est là que pour s'opposer parce que la eh. constitution nous vraiment nous confère à pour qu'on puisse s'opposer hmm. mais yéen yéen a bañ ba lànk carré ne kenn du fi opposé wu. déjà en deux déjà le 12 le 12 septembre. ba ñu installé ba pare mu am coowoo ba ca biir assemblée nationale. président Macky Sall moo taxaw se ne loolu li ñu xew à l'Assemblée c'est indigne d'une démocratie majeure mais fu mu bëgg a yóbbu Sénégal hmm. c'est indigne d'une démocratie majeure man loolu laa koy tontu fois su ne amul droit nekk nekk nekk candidat d'accord il n'a pas ce droit il n'a qu'à organiser ces élections ba pare hmm. ñi nga xam ne dafa gaal gaal seen seen bopp pour que ñu bañ a nekk ah ñoom Khalifa Sall ñoom Karim Wade na leen ba. ñu ko defoon nii en deux ñun dañu nekk candidat ñun. kenn gaalul dara suñu bopp. kenn gaalul dara suñu bopp. s'il vous plaît Sonko lan lañ koy toppee. Sonko si saa tey bu ñu defoon mais du ngeen buruxlu Sonko élection bu amoon tey tey tey day nekk candidat. du ngeen buruxlu kon moom amul benn problème. Sonko bu finalement mooy perturbé. Oh, ma ne ñi dañu bëgg a burle d'accord alors Mohamed duñ ko bàyyi bu buggee wax ñu bàyyi ko mu wax ba mu neex ba mu gën bu ñun suñuy wax mu ñu def ñuy perturbé. d'accord j'ai quelque chose à dire. non non non si c'est quelque chose à dire c'est pour vous dire non dama am lu may leeral li may leeral mooy si le président Ousmane Sonko mhm. bu amee candidat boo xam ne moom leer na nañu bokk ba suba tey tey tey bu ay élection bu amoon président di Pastef day day day postuler mais président c'est clair le président s'il vous plaît d'accord alors c'est quoi cette cette cette histoire là di Pastef s'il vous plaît s'il vous plaît yónni donc tey du ngeen ma may màggale non kii dañ koy yónni d'accord moom bokku sax ba APR dañ lay yónni rek yéen yéen ngeen leen di yónni ci plateau yi ngeen di waxal waa waa waa Macky Sall c'est quoi cette histoire là AFP ay Mohamed Diagne Mohamed Diagne. non mais loolu AFP on sait que Moussa Faye sera pas candidat mais dire que Aliou Sarr. Aliou Sarr oui am na ñu ko plébiscité. oui Aliou Sarr oui partout. oui ah, expliquez nous Mohamed. qu'est-ce qui se passe à non ñu amuñu benn non dafa ne dañu am problème ma ne ko amuñu problème. s'il vous plaît waaw yeneen dossiers yéen a ngi yor waaw mais Birama wax dëgg yàlla ñun amuñu jot wax mbay ma wax wax mbaa mbay ñaa quoi. dama laaj Birama s'il vous plaît allez-y Mohamed. ak Adji Sarr oui. l'AFP c'est quoi le problème. waaw man ba eh, ba ah. eh, leen seen bopp ah. yërëm leen seen bopp waaye yow li ñuy war nañoo wax yërëm. vraiment man ngeen nekk ci jotaay boo xam ne amu leen fa cër. ngeen bëgg ñoo yërëm ñun ñi nga ah, bu amee ku ngeen yër war a yërëm seen bopp. yéen tekkiwu leen dara fi ngeen nekk joxuñ leen fa benn cër. amu fa dara. bu ñu jógee yónni leen ci plateau télé yi ngeen di wax ngeen ne yërëm waa passé. Ismaël Aliou Sarr man c'est ça que je euh, xam nga man. Mm-hmm. Euh, d'abord Moustapha. Mm-hmm. je veux pas personnaliser un ah, la ñuy ah, wax da ma la question. oui. man su may tontu damay tontu en fonction de mon parti. Mm-hmm. AFP. ba fii may wax ak yow nii. amul kan amagul candidat. d'accord. dama lu wax dama bëgg mu leer. maa ngi lay déglu ba. AFP ba fi may wax ak yow nii. Mhm. amagul candidat 2024. parce que le bureau de l'AFP. Mhm. dajeguñu pour waxtaan ca loolu. ni lii lañ ci décidé. Mhm. su waxtu bi jotee. AFP dana daje pour wax ci loolu. maintenant bu dee question bi Ahmed Diagne nga ko posé. oui un tuto personnel. qui oui. n'engage parce que li AFP wax wax na ko. man dégguma Alioune Sarr. mu ne ma man candidat la bëri na ñu ko wax xaral ma non attends maa ngi ñëw xam nga ñu ko waxal dama ni. dama ni posé ko question dama ni. Mm-hmm. j'ai été bi mu nekk ministère du commerce j'ai été dans son cabinet bi mu nekk ministère du tourisme. Mm-hmm. kon nit gënu ma xam Alioune Sarr. Mm-hmm. dégg gu ma man Amath Diagne mi nekk ci AFP yor ay responsabilité ci parti bi. di membre du secrétariat exécutif national. foo Alioune Sarr taxaw ne man candidat laa. d'accord maintenant bu dee dafa am ñu koy waxal wala ñu ko bëggal. Mhm. seen droit le plus absolu la waaye parti politique bu sérieux mhm. du fonctionner noonu d'accord mais une candidature bu sérieux mhm. du doxee noonu ñun ci benn Bokk Yaakaar la ñu bokk assumer entièrement